bu baax Amadou. maa ngi lay fay. Eh, di nuyu moom du Mohamed Niang ak maam Jibi mm-hmm. ak ñiy seetaan ay Africa TV rawatina Good Morning Africa. ñu doxal Amadou jaajëf euh, su ko defee dañ koy rek doore ni ki niñ koy euh, faral di defee rek tey jilee amaat nañu yeneen ñaari euh, xëtu yéenekaay yi nga xam ne bokk nañ ci yéenekaay yi ñuy gën di topp ci réew mi file bile di standard moom it xëy na bind lu yaatu ci xëtu ci xarxanamu yéenekaayam bi beneen bi it nag di Foroyaa moom it tamit gis ngeen xëy moom it bind lu bari ci xar yéene kaayam bi su ko defee rek euh, ni ko duñ ko defee bu ci nekk rek dañ ko daal di jël ëñ ko euh, comp ci aslëf daal di leen ko baaxee ñu njëkkee ko ak standard Euh, gis ngeen standard nu mu taxawee ni le euh, kii nga xam ne nag moo ne fang ci euh, xët bu gën a yaatu ci xëttu yéenekaay bu standard di Souleymane Camara doon ki nga xam ne Amadou moom day xelal njiiti réew mi xam naa ne boobu la ñuy daal di rek doore ak yéen mu ngi noonu gis nga presidential adviser la maanaam rek kookuy xelal njiiti réew mi ci wàllu kaarangeeg mbaalu jokko yi muy cyber security moom nag dafa daal di àdduwaat ci coow li nga xam ne dafa rek fësoon ci jamono yi ba nga xam ne njiiti réew mi euh, génnoon na doon rek waxtaan ak kenn ci taskatu xibaar yi ci réew mi ci lu jëm ci wàllu audit report moom nag li mu dikkee mooy dafa tontu ki nga xam ne moo fi nekkoon audit report euh, auditeur général muy lu ñu bi di Karama Touré li mu ko nag tontu mooy Karama Touré report bi nga xam ne ni joxe na ko euh, ci wàllu security sport muy lu jëm ci wàllu airport bi foofee nee na loolu yi dafa rek des lu bari ndax fa mu waroon a jaar jaaru fa tey am na lu mu waroon a jëfandikoo yaatal li nga xam ne rek mooy gëstoom ci wàll woowu it te bañ a daal di jox wala tuuma ñi nga xam ne rek ñoo féetee State House loolu daal na ko rek xamle waaye it yemul foofu ndax nag wax na lu yaatoo yaatu ci wàll wi boo ci bëgg a gën a leerlu rek da ngay yër euh, yéenekaay bu standard ñu ñëw ci lile ginnaaw ni ma leen fekkee woon ngeen di wax euh, ci waxu euh, politique noonu lay standard déggee wax ji indil leen politique ku ne fàng ni le muy ki nga xam ne moo di Bakary Badji muy jëwriñ ju dénk ndaw ñi ak tàggat yaram ciro mi mom mi nga xamne mom la npp ngembu ngir mu dal di jakarlo ko mbeur mu mag mi di talib ben souda eh, lutax mu way ko mbeur mu mag bi ndax mo fo nek moy incumbent bi eh, bakari badji nak mom dal dina eh, gisane maanaam prix dikk ne mooy daal di rekk jël raw gàddu gi ci jamonoy jongantey euh, gox-goxaan yi ñu dëkkmal ci ci weeru mai muy lu jëm ci wàllu méew ne nag dina daal di jël raw gàddu gi lu tax mu am nag yaqin boobu teg na ci ne euh, bu ñu euh, xoolee li nga xam ne rek moo di jongantey njiiti réew muy présidentielle élection yewoon nee na la président bi am ci rek wala li NPP am fi nga xam ne rek moo di ci tundub KMC euh, bari na lool ak it nag ba ñu ñëwaatee ci jongante jàmbur yi muy National Assembly election loolu itam mi ngi wane ba tey NPP dominance bi nga xam ne am na ko euh, ci rek foofee di KMC ak it nag lëkkaloo bi nga xam ne amal nañ ko ak euh, waa ñi nga xam ne ñoo di si moom nag mi ngi ko daal di wax ginnaaw ba nga xamee ni am nañu ko rek fekki woon doon ko doon fësal ànd ak ak moom ci rek li nga xam ne rek moom la daal di sóobu ci la daal di rek wax ne am na yëqin ne dina rek daal di jël raw gàddu yi ci rek jongante yu ñu euh, dëgmal ci ni lee euh, ñu wax ci leneen Amadou ba tey dañuy des ak yéen ci euh, standard moom it mu daal di xam le xam naa xibaar bi la nag du neex borom kër yu bari Euh, muy nag dañoo daal di siiwal ne euh, NAWEC muy kuréel gi nga xam ne moo yor wàllu ndox ak lu jëm ci électricité ci réew mi ne dinañ rekk daal di yokk bills yi maanaam rek payoor gi ñuy fay ci wàllu ndox ak euh, électricité dinañ ko yokk ci weer wu ñu dëgmal ci ni le muy weeru avril loolu lañ daal di xamle nee nañu nag am nañ nangutoo ak puura ak it nag stakeholders si séq mbir mi yëpp am waxtaan nañ ba am ci nangutoo tey jilee bu fukki waxtu ak ñaar jotee sax ñoom dinañ daal di génn janoo ak taskatu xibaar yi gën a leeral a dëgëral daal mooy ndox moom dinañ ko daal di yokk ak électricité euh, bu euh, weeru avril daal di rek tero ci lay rek daal di euh, tàmbali amadu ñu wax euh, ci leneen nga gis euh, ñaari nit euh, ñile kenn ki di Boris di ab meyo bu Germany keneen ki di ab bañkat Sonko dëkk ci réew mi waaye nekk Germany doon nag koo xam ne bañkat la ci lu jëm ci migrants yi moo leen di xeexal maanaam activiste lu leen boole nag ñoom ñaar bokk na ci ab benn Gambien bu ñu boom foofee ca Germany dañ koo jam paaka ba mu rek doxee fa ñàkk bakkanam nag mbir maa ngi ci loxoy police ñuy daal di luññutu di gëstu lan moo waral faat gi waaye ci loolu nag ki nga xam ne mooy meyo Boris moom nag dafa génne abstiment daal di xamle ne ku ñu faat noonu dañu koo faat waaye jaaykatu sinébar la maanaam drogue pédophile la loolu la daal di xamle teg ci nag ne bari na ci ay gambien yu nekk ci réew ma foofee ci jamono ci lii la ñu yëngu di yónnee xaalis ci seen réew te nag liggéey la bu baaxul loolu nag metti ki nga xam ne nag moo di euh, Sonko moom li mu li mu nag daal di xamle mooy kaddu yooyu kàddu la yoo xam ne warul jib rawatina nag muy jógee ci kilifa gu doy ni moom di Boris ba noppi mu teg ci ne kàddu yi kàddu beddi la maanaam discrimination la ba noppi yemul ci discrimination kese waaye nag dafa dal di euh, saaga waaye xaslu li nga xam ne rek moo di réewum Gambie euh, yemul ci tuumaal leen kese waaye nag daf leen rek daal di waxal loo xam ne ay sos la tey nag loolu yi euh, waruñu ko rek dal di seetaan ci ku raw ni ku mel ni moom yore place bu doy yore Amadou ñu wax ci leneen file du ñu fi yàgg xanaa rek Uh, ab uh, tiis bu ñu rek dal di fësal uh, ci rek standard muy rek nga xam ne mooy docteur marena nekkoon uh, ppp àndoon ak uh, uh njiiti réew mi fi nekkoon di uh, sa daw de kayra ba jawra moom nag dal dina uh, wuyu ji boroomam ginnaaw ba mu laqere lu toll ci juróom-ñeent fukki at ci la rek dal di uh, wuyu ji boroom standard nag xëy na uh, fësal lu yaatu ci moom dal di bind jaar-jaaram ak ni mu àndee na ak jawara ak it nag taxawaayam ci réew mi ba rek réew mi yegg si fu mu yegg si ci wàllu demokrasi. Amadou bu ñu jógee ci standard dañ ma koy tëjal ma daal di ubbi Foroyaa Foroyaa ni ki ni mu leen ko waxee moom it xëy na bind lu yaatoo yaatu euh, ci rek xar kanamam gi waaye nag dañ ci comp it as rek ni ki leen ko defalee woon ci standard ñu dooree ko ak IMF IMF nag di ab kuréel goo xam ne ci wàllu xaalis ak yu ni mel ci àddina si euh, ñoom ñoo ci rek daal di yëngu ñoom nag daal dinañ dinañ rek daal di nangu comp lu toll ci juróom benni euh, million yu toftal juróom-ñaari téeméer téeméeri junni daal di koy rek jox réewum Gambia loolu nag lañ daal di rek xamle waaye nag bind nañ lu yaatu euh, ci biir euh, fi nga xam ne rek moo di yëglekaay bile euh, di Foroyaa ñu dem wax ci beneen ki nga xam ne nag mooy jëwriñ ju ñu dénk li nga xam ne rek moo di wàllu kopparal ak koomuk réew mi muy ministre of finance and economic di Sidi Kayta moom nag moom moo demoon ci jàmbur yi doon rek amal ak ñoom li nga xam ne rek moo di laaj ak tontu ci noonu nag ki nga xam ne mooy jàmbur bu Upper Saloum di honorable Alhaji Mbow laajoon ko nag tolluwaayu lu ñuy euh, woowe rek euh, state owned enterprises fan la rek daal di toll moom nag lim leen lim leen tontu mooy mbir mi mu ngi toll ci 2.3 euh, billion muy rek ñaari billion yu toftal ñetti million foofu rek la mbir yi daal di tontu moom Sidi Kayta loolu rek la daal di xamle. ñu dem ci mujjën teeluk li nga xam ne rek mooy suñu yéenekaay yu tey bile muy Foria daal dinañu nag amal ab sauvé ñu ko nag amal muy baro afrobaromètre sauvé boobu nag muy gëstu doon nag xool taataan gis-gisu nit ñi si rek lu ñuy woowe te nguur gi daal di woon ko rek indi ci 2017 muy rek li nga xam ne moom loon di public sector reform lu jëm nag ci wàllu gën a xoolaat nu ñuy def ba nga xamee ni ci wàllu eh, nekkinu nit ñi ak it seen yitte ak nag li nga xam xam ne mooy wàllu public secteur bi dinañ ci rek indi ay rek coppite euh, ci mbir mi waaye nag lu ëpp euh, ci askan wi nag nee nañu gisuñu ci dara tey nag bégguñu euh, ci rek nu mbir mi di doxee ndax nag la fi newoon jugi fi loolu rek lañ daal di xamle ndax nag bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi daal dina xamle ne lii afrobaromètre siiwal mooy lu 52 pour cent maanaam rek téeméer boo jël juróom fukki yeeg ñaar yi. kontaanuñu ci li nga xam ne rek moo di ci lu jëm ci wàllu public sector reform loolu lañ daal di rek xamle Amadou. ñu tëj